la la la la la la la la la la la la yéen gan yàlla yi dal leen jàmm ñu ngi ànd ak yéen bismillah yéen gan yàlla yi dal leen jàmm ñu lool ci seen ñu ngi ànd ak bismillah kaddu bu yàlla moo leen yakati nañ bismillah kaddu bu yàlla yëkkati nañ ànd dégloo bismillah jéegoy dikk yëg jéegoy dem yal na ko fulani ci bismillah jazaakumullahu xayra jazaa yàlla na ngeen am rahmatullah jazaakumullahu xayra jazaa yàlla na ngeen am rahmatullah alifun ba taawun saa jiimun xaa'un xaa'un daal زاي سين شين صاد ضاد ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ميم عقول aywa alif allah moom mooy yàlla kat ak jaam baun barun moom aji baax la ñun ñi ñëpp moom lañu taam jiimun jàlla yàlla mag yàlla tedd moom lañu bëgg laalun diinun laahi lil islaam ñu taamu fu ñu mën a dëkk haa un hayba yàlla lu fi dee mooy aji soppu ku ko dee bëgg zaayun zeynun mooy gëm yàlla booleeg sàmm xaawun xaqun yàllay dëgg ku fi baax rek kan moom ngay طاء طيب مم أدي تيلا مم أدي نخاك ومسخاك يا يمن يلا بركة مم كجي ميكات دغا أم بركة كاف كرم يلا كرم مم موي مي أندك تيرا لما تحجن دلي جام أندك ميتو دفيرا لام لو وهو رقيب سكني وانبه لنجي سكو xalimul mulkul mulkul laa yàllay burkat foo dem xam ko nuunun nuurun yàllay leer ak suuf sekkat asamaan saadun sidqun dëggug yàlla lay wax kat dara du ko changé aynun ilmun yàllay aji xam luñ fi xam mooy ki ko xam ñu ngi lay ñaan ñun xam-xam am am diine ak doom moom ngay boole un saalix yàlla aji fépp ak xob yi ngir kat muy boo un daw un daw u shamsi naajug jantay ñor loo sax sax xoofun qaadir moo am kattan moom mi fi bindaayi lekat min raawun rahma yërmaa kon la mooy lawal ku fi mar mbaakan ku fi taa un tawba yàlla kër bisu penc yow del saxoo ngir ngay kër xaun wa huwa xabiir yàlla xeral ci wax ak saun saawab yoolub yàlla moo tax ñuy wax moo tax ñuy jëf siinun samoon wa huwa samiir في وعر قيد شين شكر وهو شكور يلا قربي سانتا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ukhti sama rakk sama maam ukhti ukhti sama rakk sama maam jaamul yàlla toppal yonent lii lii lii lii lii lu la wax ki ñu bind yàlla ki ñu moom yàlla dañ koy jaamu jaamu jaamu ku fi dund yàlla ku faatu yàlla lu fi am yàlla yàlla yàlla boo dee gi yow gi ñaan ci yàlla boo dee ñaan yow ñaan ma yàlla kulli waroon bu soobee yàlla te soobee kat biw xaram na lii yonente yàlla yàlla ko yónni mu ñëw ci dunya ngir bi ñu gindi ku ko topp danga texe ku ko moy doo texe ku bëgga texe texe royal muhammad sunu yaay sunu baay sunu yaay sunu baay nañ leen waroon nañ leen rafetal lu ñu maga maga mag del wax os del wax yàlla yaramal yaramal jooy na ci jël dem mu jël sumaytul sababu muural kon danga waraw say yére nay jot say wax nay mat dammal say gët kon danga gën a gën booy julli jàppal booy woor fokkal bul soo xamtal diine diine diine moo lay jindi ci lu bona bona bon jëme aljanna fil mooy moytul mbirig bi moytul day tilimal xol daw leen daw jaww yow moytul ma fenn yow moytul ma ràmbaat lii dafa bon bon góor ña ca góor ña jigéen ca jigéen ña moytul ma jaxasoo baaxul baaxul royal ma Xadija royal ma Aïcha royal ma sunu maam jaara jaara jàngal xam-xam. danga jëfe li nga xam. jàngal ma xam-xam. danga jëfe li nga xam. jàngal ma xam-xam. danga jëfe li nga xam. bala ngaa dem xam. ju jàng. إله من waa turub jottali ñun ñoo di joxe kaddu yi di leen xiir ci jaamu Yàlla شجرتهم الجنة فداب جنب قبل جام dem sax di jéggalu waajel ko ayam ni juray jiyonen bi Mustafa moo gën ci yi moom la Yàlla def xaritam te xeñeel na ay soppeem nañu xàll aw yoonam رأيت لي وراء السنة